jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bi di jotaay xibaar yi ñu uh, fesal boppi xibaar yi njiit réew mi président Adama Barrow si ab ndaje boo xam ne teewee na ko bi nga xamee nag ñu ngay waatloo ñoo xam ne daal dañ leen dénkal li nga xam ne moo di ay nombal tànk ndaje bi doon amee si rek màkkaani réew mi di State House foofu si Banjul dinañ ko yaatal si biir xibaar yi kuréel gi ñu xamee si di World Bank ñoom nag ñoo lëkkalu ak Ministry of Finance di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk koppar ak koom-koomi mi lëkkaloo tamit ak mbootaay ajina si ñu xamee si rek United Nations amal ab ndaje boo xam ne keroog talaata lañ ko amal doon nag waxtaanee lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di koom dinañ ko yaatal si biir ki nga xam ne moo nekkoon ministre of tourism di Hamat NK Bah nga xam daal ji beneen nombal tànka lañ ko nag daal di jox moom nag daal dina daje ak way taskatu xibaar yi daal xamal leen li nga xam ne a liggéey bi nga xam ne dénkoon nañ ko li nga xam ne moo di banqaas ko yaatal si xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi daal di yaatal ajuma la ñaar fukki fan yi ak ñaar si weeru mars atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukk yi ak ñeneent jaajëfal leen si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi njiit réew mi président Adama Barrow ni ki rek daal si rek daal euh, alxemes gi am na am ndaje bo xam ne teewee na ko bi nga xam ne ñu ngi waatloo ñoo xam daal dañ leen dénkal nga xam ne moo ay nombal tànkal yi nag am ndaje la boo xam ne ñu ngi ko doon amale ci rek màkka di réew mi di state house nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal bànjul si rek daal teewaayu ay kilifa nag daal yu baree bari ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ doon waatloo nag ki nga xam ne moo jiite woon sax nga xam ne ñu ngi leen doon waatlo mooy ki nga xam ne moo di Aliou Ndiaye di secrétaire cabinet ak daal moo waatloo ñi nga xam ne ñoom lañ dénkal li nga xam ne moo di ay nombal tànk bokk si ñi nga xam ne ñoom lañ waatloo moo di ki nga xam ne moom lañ xamee si Abdoulaye Sagnang nekk ministre of interior di jëriñ ñi nga xam ne moom lañ kaaraange ak biir réew nekkoon fi inspector general of police moom nag jamono ji mooy minister of interior Abdoulaye Diop nga xam ne moom nag daal jamono ji mooy minister of tourism and moom nag mooy minister of basic and secondary education Hamad N.K.Bah jamono ji moom mooy minister of lands regional government and religious affairs Nani Juwara moom mooy minister of petroleum and energy docteur Ismail Cissé moom mooy minister of uh, information ñoom ñi nag daal waatloo nañ leen si ki nga xam ne moo di njiitu réew Adama Barrow yëkkati ay kàddu rek ndaje mi daal di ndokkale ñi nga xam ne ñoom lañ dénk li nga xam ne moo di ay nombal tànk waaye nag daal sas na leen daal ñi nga xam ne am ne daal yaakaaree nañ ko si ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk li nga xam ne moo di ay nombal tànk moom njiitu na yaakaar ne li nga xam ne moo di séntu bi nga xam ne séntu nañ ko si ñooñu nga daal dinañ nga xam ne moom la askan wi daal bugg moo di daal njiitu réew mi tamit sàkku na si nga xam ne ñoom la dénk ay nombal tànk ñu nag tënku si li nga xam ne Euh, moo di daal euh, tëral li ni nga xam ne nguuram gi nag daal dinañ ko tëral pour daal amal ay yokkute si biir li nga xam ne moo di daal euh, réew mi si rek daal ndaje moomu tamit ki nga xam ne moom nga xam ne si kii moo Konté ak Seynabou Ancé Cissé ñoom it nag daal boole nañ si boole nañ leen si kuréel gi nga xam ne si Public Service Commission moom jiitu réew mi nag daal xam leen nag atum 2024 at la moo xam ne daal atum nag yokkute la te nag daal at la moo xam ne daal ñëpp nag daal ñoo war a nag daal futteeku pour daal gis nag daal li nga xam ne moo di askan wi seen i bugg a bugg nag ñu nag daal di si taxaw Hamat Nkéba moom minister of lands regional government and religious affairs moom it daal yëkkati na kaddu si rek daal ndaje mi daal di wax ne daal ki nga xam ne moo di njiiti réew mi coppite nga xam ne amal na ko nag ab coppite nag daal bu ak daal euh, jamono la te sax daal méngoo na ak li nga xam ne moo daal yokkute moom ki nga xam ne moo di Hamat Nkéba yëkkati na ay kaddu tamit ndénkaane jëmale ko si rek ay naataangoom ne daal war nañoo fexe nag daal lépp loo xam ne daal bugg a bugg réew mi la daal ñu fexe nag daal di si nag daal taxaw ma ne daal ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ay nombal tànk waruñoo nag mandu maanaam nag daal lépp loo xam ne daal pour daal jàppale njiiti réew mi wala farleen njiiti réew mi war nañ ci nag daal taxaw bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom yi ak yeneen i kàddu moom Hamad NK Bah wax na ko si li nga xam ne moo di daal ndaje bi nga xam ne ñu ngi doon waatloo ñi nga xam ne ñoom lañ dénk li nga xam ne moo di ay nombal tànk si beneen xibaar kuréel gi nga xamante ni World Bank ñoom nag ñoo lëkkalu ak Gambia's Ministry of Finance di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk euh, koppar ak mi fii si biir réew mi daal di tamit lëkkalu ak mbootaay àddina si amal nag ab ndaje boo xam ne keroog talaata lañ ko amal doon ak waxtaanee lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo daal euh, koom si li nga xam ne moo di daal ndaje mi ki nga xam ne si Abdoulaye Diallo permanent secretary ministry of finance daal dina yëkkati kàddu daal wax ne daal li nga xam ne moo di ministry of finance am na daal ay pexe yoo xam ne daal tëraloon nañ ko bokk na si lu toll si fukk ak juróom si nag ay pexe yoo xam ne nag dafa aju ci wàllu nag yaxanal li nga xam ne moo di koo mu ne daal fukk ak juróom yooyu eh, daanaka fukk ak benn yëpp nag daal matal nañ ko ba ñu sukkandekoo si ay kàddum Fewo Borough Office nga xam ne moom mooy World Banks representative resident representative moo toogal mboota si nga si World Bank fii si biir réew mi dina wane nag lu aju si rek wàllu mbirum li nga xam ne moo daal koom ab mbir la moo xam ne daal kuréel gi di World Bank nag daal lu leen nag daal soxalte nag daal dinañ si wéyandi di si nag taxaw li nga xam ne moo di réew Gambia ki ki nga xamee si mo si buddi Priscilla Rampeda nga xam ne moom mooy Acting United Nations Resident Coordinator moom mi nag daal dina wane mbootaay àjjana si ñu xam si rek daal United Nations ab mbootaay la boo xam ne daal bépp réew boo xam ne daal nag daal dafa am jafe-jafe si rek wàllu li nga xam ne moo di koom bare nañ leen nag daal di nag daal taxaw te nag wax na ne loolu nag daal dinañ ci nag daal gën a taxaw surtout nag daal réew li nga xam ne moo di daal Gambia bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom si beneen xibaar minister of tourism and uh, culture wala ki nekkoon minister of tourism and culture Hamad si rek ab daje boo xam ne si xana ko ak way taskatu li nga xam ne moo di xibaar yi indil leen nag daal ay leeral si rek daal ni mu yore woon banqaas bu nga xam ne moom lañ ko nag daal uh, dénkoon moom nag daal dina wone am na rek ay yoo xam ne daal def nañ ko bi nga xam ne dénk nañ leen li nga xam ne moo di daal banqaas boobu mu ne rek daal uh, moom Hamad NK Bah mu ne si atum 2017 nag daal lañ ko nag daal dénk li nga xam ne moo di nombal tànk bu si jamono yooyu lii daal ñëw si ay gan doon jógee ko si réewu tugal yi mu ngi toll woon si rek euh, téeméer ak juróom fukki junne si li nga xam ne moo di ay gan mu nekk waaye nag wax na ne euh, nag daal loolu daal mujjee nañ ko yokk laata sax covid 19 doon yegg si gannaaw bi nga xamee daal wax na ne laata covid 19 doon yegg si am na nag daal toll si rek ñaari téeméer fanweer ak juróom ñeneen juróomi fukki junne si li nga xam ne moo di ay nit yoo ay gan yoo xam ne dañ daan euh, ñëw fii si biir li nga xam ne moo di réew mi mu nag daal di wax ne rek daal daanaka mbir mi bi covid ñëwee dafa nag wàññeeku mu toll woon si rek daal juróom ñeneen fukki junne si ay gan yoo xam ne dañ daan ñëw fii si biir li nga xam ne moo di daal euh, réew li nga xam ne moo daal Gambie waaye nag wane ne bi nga xamee ne Covid weesu na daal mbir mi nag daal euh, yokkuwaat na bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di ay kàddoom director of euh, director of Gambia Tourism Board ñu xamee ko si rek Aboubacar kamara moom nag daal dina wax ne rek daal am na ay yokkute yu bëri yoo xam ne amal nañ ko bokk na si jag-jagalaat wala defaraat ay craft makers yoo xam ne ñu ngi si rek daal li diwaanu li nga xam ne moo di teeru ne tamit eh, am na tamit ay dalluwaay yoo xam ne tamit daal dinañ leen nag daal eh, taxawal am nag daal ay jag-jagalaat yoo xam ne amal nañ ko si rek wàllu li nga xam ne moo di daal eh, dalluwaay yi Momadou Singate directeur général bu Gambia Tourism and Hospitality Institute moom mi nag daal dina wax daal li xam ne moo nag solo si nga xam ne dalluwaay yi am nañ ko mu ne loolu moo waral ñi nga xam ne ñoom lañ leen tàggat pour daal ñuy liggéey si rek wàllu dalluwaay yooyu nag daal ñu ngi leen sol xam-xam yu mucc ayib yoo xam ne méngoo na ak li nga xam ne moo di daal euh, jamono Hassoum Cissé directeur général bu National Centre for Arts and Culture moom nag wax na ne si lëkkaloo boo xam ne lëkkaloo nañ ko ak UNESCO am na daal ay nag daal li nga xam ne euh, moo di ay nag daal béréb yoo xam ne bérébu li nga xam ne moo di daal taarix la wala bérébu li nga xam ne moo di cosaan la yoo xam ne daanaka nag daal mandargal nañ ko te nag daal war nañoo nag daal suqali li nga xam ne moo di daal béréb yooyu noonu bu ñu sukkandekoo si kàddu yi moom ki ñu xamee si rek daal Xasum Cissé si rek xibaar nag daal gu mujjee gi bi nga xamee ne si rek daal àddina si ñi nga xam ne eh, ñoo di nag daal jullit ñi nga xam ne ñoo bokk si rek diine islam ñu si seen weer wu sell wi ñu xamee si ramadan wala weeru li nga xam ne moo di koor lu waral télévision bu mag bi ñu xamee si QTV nag daal am nag ab nag waxtaan woo xam ne si xana ko ak ñenn si ñi nga xam ne ñoo di rek askan gannaaw bi nga xamee ne jullit ñee chrétien ñoom ñëpp nag daal ñu ngi si seen weer yu nag daal selle yi li nga xam ne moo di daal ramadan di weeru koor mooy nag daal juróom ñeneenteelu weer si rek atum li nga xam ne moo di daal islam ab nag daal weer la woo xam ne ñi nga xam ne ñoo bokk si rek daal dina islam dina ñuy nag daal faral di daal woor maanam di di ñàkk a woor di ñàkk lekk ñàkk naan suba ba si li nga xam ne moo di daal ngoon si ba tey nag daal bi nga xamee ne daal télévision moom ak yi ñu xamee si QTV nag daal eh, seq na waxtaan ak ñenn si askan mi ki ñu xamee si Hawa Kijera nga xam ne moom mu ngi bokk si rek daal diine ji di diine islam moom nag wax na ne li nga xam ne moo di ramadan ak weeru koor nag daal moom nag daal li nga xam ne moom la si faral di gën a def mooy nag daal fexe delluwaat si yàlla fexe tamit nag daal jàng téere bu sell bi di alquranul karim fexe tamit di nag daal bàkk suñu borom ne daal loolu nag daal day faral di gën a def Ibrahim Jammeh nga xam ne moom it nag daal si diine ji di diine islam la bokk man wax na ne rafetlu na weer wi nag daal di rek weeru ramadan wala weeru koor weer lu barkeel la waaye nag wax na li ko si naqar yi mooy nag daal yokk bi nga xam ne daal ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi dinañ koy yokk seen wàllu li nga xam ne moo di njaay surtout nag daal wàllu moo di dund gi ne lu ko naqari la mu nag wax ne daal mu ngi xamal ñi nga xam ne ñoo yëngu si rek wàllu jaay daal wala wàllu njënd ak jaay dañ war a nag daal xam ne weer wala woo xam ne weeru ut tiyaabo la bu ñu sukkandiku daal seen si rek li nga xam ne moo di ay kàddoom Dembo Jiba moom nag daal dina wax ne daal daal dina nag daal rafetlu weer wi gannaaw bi nga xam ne weer la woo xam ne baax na si rek wér gu yaram yi li nga xam ne moo di daal askan wi te daal am na lu bari loo xam dina koy soppi si rek doom yi li nga xam ne moo di aadama bi Ramatoulaye Amponsa moom ab christian la moom nag yéen na yàbbi naa bi nga xamee ni ñoom it ñu ngi si seen weeru li nga xam ne moo di koor mu ne daal li ko gën nag daal neex si biir mi nag daal mooy nag euh, diine islam ak euh, diine christianité ñëpp nag daal atum ren nag daal seen nag daal weeru yu sell di rek daal weeru koor dafa nag daal di daje mu ne lii lu mu nag daal rafetlu te nag daal mbir mu ko yéem la bu ñu sukkandekoo rek si li nga xam ne moo di ay kàddoom